ñu ngi leen di yu mbokk yi di leen dalal seen émission Rewmi People Rewmi People samedi ji tey nag ñu fas yéene dugg ci wàllum stylisme dugg atelier bi nga xamante ne moom lañuy wax les ateliers Lady de la grande styliste Oumou Sy Oumou Sy nag niki jeudi bi ñu weesu maanaam alxames da doon amal ak janook taskatu xibaar bu yaatu li ko waral mooy dafay waajal ab euh, événement bu mag ñu tuddee ko le bal des signares mu nar ko amal incha allah le 16 janvier au grand théâtre national de Dakar te ñu baptiser ko léegi grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose boobu la événement bu mag mu fas yéene amal ci la nar a jaaree célébrer li nga xamante ni mooy trentième anniversaire présence am ci wàllu mode décoration loolu la xamle ci bi muy amal janook taskatu xibaar yi. mu si mën d'origine peul elle est née en 1952 à Diatar ci wetu Podor ci dëkk bu ñuy wax Fouta jege lool fleuve du Sénégal moom nag mu juddoo ci njaboot goo xamante ni toll nañ ci fukk ak juróom ñaari doom tout tànk yaayam ma nga bawoo fi nga xamante ne mooy Casamance son père est xalif de la confrérie Tidjane bi mu amee juróomi at rek la génn àdduna gannaaw bi papam làkko la jeune Oumou si commence à fabriquer des vêtements avec des tissus de récupération et ouvre son premier atelier de couture ca Ndar Géej fa la njëkk a ubbee atelier bi nga xamante ni moom la yoroon boobu gone la na ma nga tolloon rek ci fukk ak ñetti at nekkoon ci keppaaru enseigne bi ñuy wax Bagatelle Couture bi mu tolloo nag ci ñaar fukki at ci la ubbi magasin bu njëkk prêt à fii ci ndakaaru bëgg-bëggam ci wàllu mode mu taxaw ci thème labelam nag mooy Méti Sakana te ay atelier am tudd Lady boobule soxna di Oumou si styliste grande styliste sénégalaise kon tey moom la ñu fas yéene waxtaanal ci suñu bile émission 30 ci li muy def tax mu taxawal événement bi di bal des Signares kooku tey la ñuy waxtaanal ci réew mi people mu fas yéene ñëwaat ci li nga xamante ne mooy carrière ak itam wax ñu Balde Signar ana lan moo ko sooke bii nar a nekk première édition bi artistes yu bëri nar caa teew. li nga xamante ni mooy wàllum siñaar ñu bari dañuy dégg rek siñaar wala sax ñu koy gis jigéenu siñaar yi ana lan moo nekkoon li nga xamante ni mooy seen particularité kon suñu gan di Oumou si ci janook taskatu xibaar bu yaatu bi mu doon amal loolee lañ ko njëkk a laaj mu daal di ci tontu. Uh, salaamaaleykum journaliste yi euh, maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci yeewu teel bi ngeen yeewu ak xaar bi ngeen xaar. man mënuma leen ko fay yal na leen ko yàlla fay voilà maintenant on commence euh, le, le, la, le point de presse pourquoi j'ai organisé un point de presse parce que ça c'est un travail qui a quand même 30 ans depuis 30 ans je travaille sur les signares en fait et les colons euh, ça a commencé quand je voulais arrêter l'art parce que je, je ma, ma famille qui est chérifienne Et de l'autre côté, mon, ma famille qui est maraboutique, de Diatar, de Tiwawan, de d'où vous parce que personne ne m'a jamais questionné sur ma famille, on m'a toujours questionné sur mon travail. De l'autre côté, je suis parentée avec Mbaba parce que la fille aînée de Mbaba Diakhoba, qui était mariée avec Cherifinous, et son fils aîné est le père de ma mère. Ça veut dire que je suis euh, dans le Nyoro du Rib, je suis partout, j'ai des parents sérères, j'ai des Euh, et soninké et tout ça. Le métissage ne peut pas être la peau claire. Et quand je suis que je suis métissée, et je voulais arrêter quand même. J'ai arrêté pendant trois mois. Et il m'est arrivé, j'ai allumé la radio, j'ai entendu Moussa, Moussa chanter Artiste du Dano. Artiste du Fonk Ligayim, Artiste du Dano. Je l'ai écouté attentivement. Parce que les musiciens, ils peuvent conseiller les gens euh, au-delà de n'importe où, parce qu'il suffirait d'entendre la voix. Et quand j'ai fini d'écouter Moussangom, je me suis levée. Je suis au marché voir mes, mes, mes partenaires qui me donnaient des tissus, tout ça. J'ai fait une fresque. Quand j'ai terminé la fresque, je cherchais Jacob Yankoba pour valider. Parce que moi, j'ai ouvert mes ateliers, j'avais 13 ans. Je ne savais pas où allait mon métier, je sais pas quel niveau j'avais. Et j'amenais toujours mon travail à Jacob pour Et la fresque, euh, euh, on m'a chambre de commerce, j'arrive, on m'a dit, oui, aujourd'hui, c'est les journées culturelles de saint et qu'il y les ambassades, que ce et tout, ils sont là et ils n'ont pour exposer. Ça veut dire que ma fresque a sauvé le, le, les de cette année-là, moins 88, pour, euh, ce, ce, pour les journées culturelles de saint -Louis. Et j'ai exposé la fresque. Jacob me dit, quest que tu fais l'après-midi Je dis que tu pour amener à la place parce que tous les AEC viennent, parce qu'on est en train d'aller sur l'année du bicentenaire. Je lui ai dit non, moi j'ai rien, mais je vais aller faire quelque chose. Je suis arrivée à, à la maison, j'ai pris un vieux boubou que j'avais, je l'ai transformé en robe de signal. J'ai habillé Maria, elle avait 14 ans, et je, je l'ai, j'ai préparé la maquette de Anne Pépin, et je lui ai fait tenir ça. Elle était seule parmi tous les AEC qu'on sort, mais c'était le but de l'année C'était le bicentenaire qui arrivait de la Révolution française. Et j'ai gagné le marché du bicentenaire avec cette robe de signal. Et c'est pour ça que je tiens à faire comprendre aux gens, les signards, c'est pas seulement reste belle et tais-toi, mais ils ont quand même œuvré beaucoup pour le développement de notre continent. Et pourquoi euh, euh, on commence, on a commencé à Saint-Louis Parce que tout le monde croit que les signards ont débuté à Saint-Louis, or que les signards ont Mais la première signare qui est née, elle est née à Rufisque. C'est euh, la signare, euh, hein, Cathy. <laughs> elle, elle, a, elle a parlé. C'est la signare Cathy qui est née à Rufisque. C'est elle qui est la tante et la badienne et la mère de toutes les autres signales. Et on parle toujours de signales, mais on ne parle pas des garçons. Mais les signales n'ont pas fait que des filles. Ils ont fait des garçons. C'est pour ça qu'il y a certains noms européens qui se trouvent au Sénégal. Mais le Sénégal seulement, c'est-à-dire les signares du Sénégal, la signare Cathy et la reine Dateyalla et le papa de Senghor, c'est eux qui ont empêché beaucoup de gens d'être vendus. Parce que c'est la signare Cathy qui a une partie des esclaves qui arrivent de la sous-région. Et l'autre partie, c'est la reine Dateyalla qui a acheté. Et le papa de Senghor qui a acheté. Et alors, s'il les achète, il les met dans la maison, comme ils aiment accueillir les gens. S'il y a des étrangers qui arrivent, hommes, s'il y a des, des, filles qui sont achetées, qui sont là, il les données en mariage, puisqu'ils restent au Sénégal, pour qu'ils ne pas. C'est ce qui fait que le Sénégal est un multipode de, de d'ethnie, de mélange et de métissage. Parce qu'on voit des gens qui sont dans le Sénégal oriental partout, c'est des métissages partout. Alors, euh, maintenant, euh, c'est pour ça que je me dis que tous les livres qui, sont écrits, qui ont été écrits sur les signares, il y en a beaucoup, mais il n'y a jamais d'image réelle Et moi, j'ai reconstitué tous ces mulâtres, j'ai reconstitué tous ces signares pour faire maintenant le livre sur les signares avec des images, avec des interviews partout. Et on doit faire après un film de 52 minutes sur l'histoire de ces signares et ces mulâtres et l'arrivée des colons. Parce que le premier fort qui a été construit en Afrique, ça a été construit à Podor. Et moi, je suis née à Podor. C'est pour ça que j'ai tenu à parler avec Babonal. Mais dans les autres capsules, vous verrez Podor, vous verrez partout, vous verrez etc. Parce que Federba a habité Podor avant que le, la gouvernance de Saint-Louis termine. Et il avait une femme, Bambara, qui s'appelait Djonkunda. Ça veut dire qu'il dans les mariages, les baptêmes et tout. Il y a été converti musulman et d'autres ne savent pas parce que ça, ça reste euh, peut-être dans les écrits, ça va être écrit dans le livre, Pour l'instant, on ne peut pas tellement euh, y, part, y, euh, y continuer. L'autre colon, qui est William Ponty, qui porte le nom de William Ponty, et William Ponty de l'école, de William Ponty de la rue, était basé à Sejou. Et son premier euh, marabout et, et, et, et, euh, le premier disciple de Shérif mon ancêtre, qui est le grand-père de ma mère, c'est lui qui a converti William Ponty celui qui a prié avec William, à, à William Ponty, qui lui a fait les prières, c'est celui qui lui a offert sa première femme, qui est toujours sénégalaise. Et malheureusement, lui, il, il avait fait que des filles. C'est pour ça qu'on n'entend pas Ponty quelque part, mais le nom William, il en a plein Etc., etc., Parce que je ne vais pas parler de tout le film, ni toute l'histoire du livre, mais je vous parle seulement de ces deux-là. Mais le reste, vous allez les découvrir Et euh, je remercie aussi le ministère de la Culture et les bureaux du cinéma et le ministre de l'Intérieur pour avoir l'autorisation du tournage et l'autorisation de faire euh, les tournages avec les drones et tout ça. Parce que quand même, il faut autorisation pour, pour toute chose. De telle sorte que même si on a nous, nos, nos accessoires pacoutis qu'on a pour faire nos spectacles et tout ça, maintenant il est établi une loi qu'on doit vraiment avoir l'autorisation de circuler avec nos accessoires. Parce que c'est des armes fictives, il paraît. Parce que ça peut peur. Voilà. Comme nous, on fabrique les choses jusqu'à ce que ça identique, or que ça peut Mais quand même, il faut une autorisation pour ça. On va veiller sur euh, lu tax euh, lu ma indil euh, xel pour def baalu si war ci def livre war ci def film mooy. première costume cest a dire yére bi ma jëkk def ci signaar yi ñoo ma tax a gagné marché bi centenaire ça veut ma liggéey ak France luy mot at bi ma paree ma def spectacle Toussaint l'ouverture dans la baie de Ngor avec les 40 chefs d'État des pays francophones bi ma paree loolu ci laa commencé nag di gëstu ci histoire signaar yi di seet naka la ñu ñëwee ak fan lañu toll ak lan la parce que dañ daan wax ni signaar yi ay jigéen lañu ñoo xam ne ñi colon bu demee beneen colon ñëw beneen beneen colon dem beneen colon ñëw mais am na beneen liggéey bu nekk ci ginnaaw xam nga lépp mënul nekk loo xam ne lii dafa dafa négatif cest à loo xam ne lii jaarul yoon am na yoo xam ne jaar na yoon parce que bi bi ñu tubaab yi daan indi jaam yi di leen jël ci dëkk yi nga xam ne ñooy suñu dëkk dëkk yi nga xam ne ñoo jege premier signal bi jëkk jaa jënd jaam yooyu mooy euh, kii signaarkat yi. léegi benn keneen ki nga xam ne mooy jaay jënd yeneen jaam yi mooy reen ndate yàlla bu bu bu wàllu ñeneen ñi des Pape Senghor moo leen daan jënd. Senghor dégg naa moo doon ñaar fukkeelu doomu papaam ak ñeent parce que am na ñaar fukki doom ak ñett soo am Senghor muy ñaar ñaar fukki doom ak ñeenteel bi mooy sengoor après mu amaat yeneen doom nag yu bari. ça veut dire dafa bëggoon surpeupler Sénégal peut-être ah dama wax ci Senghor sama waay sama tigoo sama waay waaw maintenant j'attends les ñu laaj ko li nga xamante ne mooy contenu boobu léegi bal dee si ñaar naka la fas naka la nar a lan la ci nar a propulser mhm. le contenu c'est que le metteur en scène va être Jean-Pierre Lers le chorégraphe sera Jean Tamba Et le contenu est que j'ai reconstitué les costumes. Ça, j'en ai parlé. J'ai reconstitué tous les costumes des signards et des milâtres. Et le, le, le but est que l'arrivée de tous ces colons n'ont pas fait tilt. Il n'y a que l'arrivée du chevalier de Boufflers qui a fait tourner la tête de toutes les signares. Parce que chaque signard voulait que chevalier de Boufflers l'épouse. Mais finalement, c'est Anne Pépin qui a gagné. Mais Anne Pépin, en partant, Elle était mariée à Pépin. Mais quand le chevalier de Boufflers est arrivé, elle a demandé, <laughs> grâce, euh, demandé à son mari de lui laisser la place d'aller se marier avec le chevalier de Boufflers. Imaginez ça. Moi, je sais qu'il n'y a pas aucun Sénégalais qui va accepter ça maintenant là. abal ma sa jabar ah loolu ci temps séeréer yi lañ ko daan bu gan ñëwee amuñu ko ñu koy jox ñu jox ko sa jabar ji mu fanaan mu nekk ak moom ba gan bi dem mu a jabaram amoon na fii ci amoon na kilifa africain yi ko daan def soo ñëwee seen soxna lañ lay jox moom tam mu nekk ak chevalier bu flair mu tabaxal ko kër gi defal ko yëpp bi muy dem mu delluwaat si ci kër ji loolu la rek waaw loolu xale yi war nañ ko xam waaye mënuñu toog di leen jàngal ay Victor Hugo ay euh, yu kenn xamul euh, or que li kenn war a xam moo nekk fii ñu war ko xam surtout parce que xam nga bu ñu nee si ñaar rek ku nekk da ngay ragal am na ñu bari dañu bokk ak si ñaar yi fii waaye ñemewuñu wax ni dañu bokk ak siñaar ñemewuñu ngaan seen gémmiñ ni bokk nañu ak siñaar parce que euh, catalogué bu ñu catalogué siñaar yi moo ñaaw ñaawaay boo xam ne bi ñemewuñu bokk ak siñaar or ñu bare dañu bu ñu bëggee civilisé rek ñu ne ah man am wala bu ñu bëggee baax ñu ne am naa maamu tukkuleur mais ngay am maamu tukkuleur waxal fi nga jaar ba am maamu tukkuleur waxal fi nga jaar ba am maamu siñaar c'est-à-dire seen arbre généalogie lañu war di xam nit ki balaa ngay xam foo jëm nga xam foo jógee ba pare nga soog a xam fi nga jëm. Oumou Sy tam nekk koo xamante ni elle est très ancrée dans ses valeurs ses valeurs Haalpulaar moom nag jàpp na ni histoire u Sénégal lu bëri dañ ko travestir wala sax niñ ko war a jàngalee xale yi ci lekkool yi defuñ ko ni moo tax loolu mu indi ci ay ñaaxaate. non non non l'histoire de de l'Afrique et l'histoire du Sénégal n'est pas enseignée à l'école. ñun ay ay Charlemagne lañ ñuy jàngal ay général de Gaulle ay Faidherbe ba ay affaire yooyu jàngaluñ ñu yow yow Mbaba Jaxu baa lan la doon def jàngaluñ ñu euh, Albury xanaa ci tiit l'exil d'Albury mais naka la def ba exilé lan la liggéey ba exilé wu Albury bi muy dem dafa empoisonné lakk yi pour que ennemi yi seen fas yi bu ñu bu ñu bëggee jaar rek ñu de comprendre mais bi bu na ñëwee moo bënn teen ba jolof naan ci ba ñëpp naan ci biram njéemi voilà bu na Albury ça veut am na lu ñu def loolu dañ ko war a wax xale yi ñu dégg ko ñu xam ko ñu respecté seen bopp parce que nit balaa ngay xam sa bopp nga xam fi nga jóge loolu la rek. jàpp na ci waxtaan gi xamal nañu ni que jàpp na ni. ni projet de mode bi nga xamante ni moom la am jëmale ko ci wàllum colon yi signaar yi ak lépp lu li ñu amoon comme taxawaay fii ci Sénégal dina indi benn touche dina indi beneen dina indi ab jàngale ci wàllum pédagogie. c'est-à-dire la mode elle est vaste parce que la mode c'est un métier qui fait que qui ne sortira jamais de la mode parce que les gens quoi qu'il arrive ils s'habilleront ils mangeront et ils se soigneront parce que la médecine elle sortira pas de la vie le, le, le fait de manger et de manger bien ça sortira pas de la vie de l'être le fait de s'habiller ça sortira jamais de la vie de l'être Seulement, il faut s'accrocher parce que l'arbre, elle est, elle est grande, elle a plein de branches. Il faut savoir sur quelle branche tu dois t'accrocher pour faire, faire, partie, faire euh, euh, vendre ton produit. Moi, je suis styliste costumière de cinéma et de théâtre. Je l'ai appris nulle part. J'ai même pas appris à parler français parce que j'ai pas fait l'école. Mais le fait d'entendre les gens parler, mais je suis pas folle. Si un mot français qui n'est pas qui sonne pas bien à l'oreille, c'est qu'il est mal prononcé. Ça, c'est Senghor qui avait dit ça. Mais à force d'écouter Senghor, je parle français. Parce que je me disais que moi, si j'allais à l'école, Senghor ne serait pas président de la République, c'est moi. Eh, pourquoi pas Il faut viser loin. nit ki da ngay séntu fu kawe de bul séntu fu suuf nit waroo suufeel sa bopp c'est que olof nag bu ñuy yar seeni doom dañ lay naan nen nga waajur bi mooy xeer bi soo ko dalee toj su la dalee toj xale bi day fragiliser du xamati fu jëm mais ñun xaalpulaar dañu ne doom nawle la ndax mooy sa ndono ëllëg lépp loo am ci xam-xam jox ko sa doom loo am ci respect jox ko sa doom moo tax ñuy am jom. est-ce que mën nañ xam œuvre boobu nga xamante ni moom ngay waajal di boobu la événement. naka la nar a demee. c'est ce sera un livre d'art avec de jolies images et et ça va être entre trois cents pages. où ça va aller jusqu'à 500 pages. C'est un vrai livre d'art. Il y aura des images et des écrits, bien sûr. mais xamaa mënoo toog di lire rek comme dof doo gis dara lu leer doo gis dara lu rafet ñun illettrés yi ñun ñi nga xam ne jànguñu image lañ soxla. mon livre je le fais pour tout le monde je le fais pas que pour les intellectuels parce que je le fais pour des gens comme moi qui ne savent pas lire et écrire mais qui savent lire les images l'image il faut qu'on sache les lire comprendre livre d'art lay def. ci sa mbëbët itam nee nga bëgg ngaa amal film bu presque soixante minutes cinquante et quelques minutes boo xamante ni dañ ciy retracé wàllum Signara ak ñi nga xamante ni ñoom lañ wàllum Signara ak ñu ci mel ni Boufflers est-ce que mën nga ñëwaat ci film bi. le film va être monté en cinquante Oui, bien sûr que c'est ça, comme un documentaire, parce qu'il y a des interviews, les intervenants, les gens, on a voyagé partout, on a fait Gorée, Saint-Louis, Joal, Refisque, on a interviewé les gens, et en même temps, il y a l'histoire euh, qu'on va raconter et qu'on va, qu'on va vivre, il y a des mises en scène, il y a tout, ce sera un film documentaire, mais avec une mise en scène quand même, parce qu'il y a quand même des raccords, parce qu'on vient de faire le Takusanundat avec le Reine des Sègles, On a fait ça, mais tout ça, quand, quand les gens qu'on a interviewés parlent de Rendiseg, sur l'écran, tu verras Rendiseg. Dans le livre, si on met le pa la page de Rendiseg, tu, verras les écrits sur les Rendiseg. C'est comme ça. Quand m'ont réalisé Bobo le film Produit par moi, parce que j'ai pas de sponsor, Voilà. le prophète avec moi avec les gens compétents qui sont autour de moi et des partenaires qui sont là, qui me prêtent les salles gratuitement. et d'autres qui me prêtent les autres salles gratuitement, les amis qui viennent me soutenir, qui viennent travailler gratuitement et les mannequins qu'on va donner le transport symboliquement et Jean-Pierre Leuss qui fera la mise en scène symboliquement parce que depuis 30 ans on travaille ensemble. Jean Tamba, même chose, c'est-à-dire c'est un livre où j'ai des, des j'ai pas d'argent mais je suis riche par les amis. Voilà, c'est ça la vraie richesse en fait. L'argent est fini, mais les amis que tu as depuis tout le temps, ça, ça reste. ça on peut pas les acheter ni est-ce que ci événement bi nga xamante ni moom nga nar a amal 16 janvier gi ñu dëgmal dina am participation ay stylistes yu mag yu nekk fii Sénégal est-ce que dans ci bokk wala sax ñu jóge bitim réew. c'est-à-dire moi je suis la costumière la première en Afrique ça c'est mon livre à moi c'est mes créations c'est mon savoir-faire c'est mes méthodes c'est une recherche de 30 ans.

Voilà, c'est ça. Alors, si les autres viennent, peut-être ils vont même pas comprendre de quoi je bouge. Alors ça, c'est mon truc à moi. Parce que chacun, je, je vous ai dit que l'arbre est l'aigle. Chacun a qu'à s'accrocher sur une branche où il peut pas sortir. Parce que moi, je me dis, il y en a qui disent euh, les Chinois sont là, les, les, les étrangers sont là, on ne peut pas travailler. Mais tournez la page, faites autre chose que les étrangers n'amènent pas. Il faut creuser sa tête et créer. Moi, ça ne m'a pas dérangé, les étrangers ceux qui sont là, ils m'ont jamais dérangé. Parce que moi, je, je crée. voilà c'est ça. Euh, mooy ñeneen ñeneen ñawkat yi mun munuñ fi nekk parce que lii man maa ko man maa ko ñaw maa ko créé maa ci gëstu depuis fanweeri ak maa ngi ciy gëstu xam nga li ngay gëstu fanweeri ak avant noo duggal c'est pas un défiler de mode du défilé de mode spectacle la man défilé de mode def naa ko ba sonn. léegi ay spectacle lay jox nit ñi c'est-à-dire tous les jours bu nit ñëwee war a seetaan man li may wane dama bëgg di jaaxal nit ñi di jommal nit ñi di leen jox lu bees bëgguma di leen jox li nga xam ne amoon na ba pare man duma styliste boo xam ne damay xool journal pour ñaw man damay damay fent li may def sama liggéey dama koy fent def ko loo xam ne lii bu fekkee amoon na sax man dinaa ci yokk tuuti pour mu baax parce que signaar yi li doon sol avant man signaar yi ma créé ñoo ko dax fépp sax benn c'est même pas comparable voilà loolu la sama turandoo mu ngi nii mu xaa robe bi Maria soloon bu yàgg bi moom la waroon soloon ñëw mais dafa jàngi woon école mu ngi soog a wax ci c'est dommage robe baa ngi ci grand théâtre mënuma la ko sonal pour nga war wane sama première robe signal c'est dommage voilà ndax itam dina am ay artist invité artistes invité yi Carlou D day baal Sanekh day baal c'est-à-dire waa waa waa ah soleil levant jigéen ñee góor ñi ñëpp dañ leen di solal keroog jooj bu boobaa du ñu ay acteurs mais ay danseurs la ñuy nekk waaw euh, Wally Seck dinañu répondre parce que répondre gu ñu mënuñ ci prononcé wu mais on sait que Viviane day ñëw day fuddanu sax suba séance de fuddan bi kër kër euh, Habib Diouf lañ koy def doomu Abdou Diouf fa la ñuy defee parce que am na benn setu Abdou Diouf bu jógee ba amerique war ci bokk ñooñu la ñuy defal séance de fuddeen bi suba pour que ñu mën a bokk ci ci baax mais séance de fuddeen bi nag ci beneen film 52 minutes bi ngeen koy am mais mënu leen ko am ci ci capsule yi ak affaire yooyu waaw ni ma leen mosal tuuti rek mooy euh, euh, naka la apéro li tubaab yi naan apéro li li li li tukkuleer di naan tufam ngeen naan tufam bi balaa añ bi di ñëw waaw Viviane day day fuddanu day bokk ci bal de signaar parce que kooku sama doom la fu ma ko woowee daf may wuyu su may def même ay événement xale doomam yëpp ñooy ñëw tous les jours danaa leen fi garder pendant un mois ou deux chaque semaine dinañu ñëw répété dem te moo leen di indi moo leen di yóbbu musuma wax ni i wala an parce que kooku sama sama doom la voilà ah di di jee bub su day baal moom ak si moom ak Viviane ñooy baal voilà xam nga baal bi dina neex ci baal day si ne nee nga it ci boobule bés di nga dekkalaat plat yi nga xamante ni colon yi dañ ko bëggoon torop yan xeetu plat la nar a doon. dîner bi waaw xam nga colon yi dañu amoon ay plat préféré bu ñu ñëwee fii senegal ki nga xam ne moo waral baal bi mooy chevalier bu flair plat préféré am coof braisé la woon naka moo fuy léegi. Euh, William Ponty mu nekkoon Sédhiou plat préféré am foño la woon ak maafe soit ñu boole ko ak ceeb soit boole ko ak ak ak ak foño même sauce bi moom benn la maafe bu am ganaar am yàpp xar ok ak ak ak euh, yooyu loolu la euh, William Ponty daan lekk parce que on est sur ces deux là ñeneen ñi duma leen ko redale dina am ceebu jën parce que xam nga ren ndate yàlla mu ngi fii ki daan toggal ren ndate yàlla kooku kenn ci waalo waalo jigéenu waalo yi am jom yooyu muy pend mbay moo xëy benn suba gan yi bari xamul lu muy def mu yokk ñu lub bi seppi jën yi yokk ñu lub bi sebet ceeb bi tay ko daal ko sóor muy ceebu jën pend mbay loolu il faut mu am beneen bi yaasa poulet mooy am parce que yeneen colon yi suñ daan ñëw yaasa poulet la ñuy bëgg loolu dina am mais dem farci bi mënuma leen ko garantir parce que léegi du période du dem dem dafa am période dem farci bi tam palaawu colon yi la ñu nekk ndar nekk refus yi nekk et mais dina am ay boissons yu neex dina am njar dina am ataaya dina am café dina am yëpp dina am ay ay miniature ay fataaya ki beñeek affaire yooyu yëpp dina fi nekk. est-ce que ci sa projet bii nga xamante ni nee nga bi nga ko sumbeek léegi yàgg na torop état bu Sénégal est-ce que jàppale na la ci. mais yaa en coup man sama jom lay doxee man aw ma xaw man nit ki bu ma ko bu ma ko bindee lettre benn yoon tontu woo ma ma bindaat la ñaari yoon nga ne ma le dossier et en cours et en travail le dossier est dans le dans la circulation man ma xam ne temps bi du ma xaar man duma xaar dossier bu nekk ci circulation ndax embouteillage dafa am. ci biir ministère yi dafa am embouteillage ci mbedd yi dafa am embouteillage mais comme embouteillage yi dafa am ñoo xam ne xëy na ñooñu ñooy priorité man ma xaar comme man maa moom réew mi maay borom réew mi man maa war a xaar borom kër mooy xaar. gan la ñuy privilégié ñun dañuy xaar noonu lañ ñu yaree si amee complication ñu bay ñi nga xam ne xëy na ñoom ñoo ñoo ñoo priorité ñun ñu def lu ñuy def mais amul benn subvention de nulle part même ci xarit yi seen doolee lañ ma jox mais joxuñu ma xaalis parce que xam nga ne yëre yi ñu defar yépp ça a un coût les chapeaux je les ai commandés en Europe et ça a un coût j'ai les bottes à la gendarmerie et d'autres je les ai achetées et ça a un coût. Et les vêtements, les bijoux, les accessoires, tout ça a un coût. Et le fait que les mannequins viennent répéter suñu dem seen transport ça a un coût suñu paree seen per diem ça a un coût le film et les caméramans qui m'ont suivi pendant tout le tournage ça a un coût le montage a un coût et maintenant l'écriture du livre a un coût le tirage du livre a un coût voilà non je donne jamais de chiffres jamais je donne de chiffre parce que xawma sax li ma dépensé lan la nee naa la depuis 4 mois maa ngi defar ay yére di teg cest à yére yi defar naa ko bu yàgg c'est-à-dire depuis 30 maa ngi defar di teg bi ma paree maa ngi maa ngi fiñole maa ngi def raccord yi di def raccordement yi et cetera ba pare mënuma la wax ñaata la jar man bu ma nit waroon fay pour ma defaral la yére yii soo ma joxul 100 millions du la ko defar mais comme man maa moom samay maa moom samay yére man may neppi sama jën man maa koy waas maay jënd maa maa yore sama pépinière di buddi samay légumes di def di di di weer samay géeje yi ñëw kon mun naa togg ma yekk c'est tout la bu weesoo wàllu bëgg-bëgg bi ak li nga xamante ni mooy passion gi ngay def mel na ni kon liñ ci nar a gagné bariwul kon qu'est-ce qui vous Tata Oumou Sy C'est-à-dire, ce qui me fait courir, déjà, c'est de, de, de relater le savoir-faire que l'on a au Sénégal, que la potentialité que le Sénégal a, et ce que l'Afrique a, et ce que l'Afrique a besoin de faire montrer aux enfants, aux jeunes qui, qui n'ont pas, qui n'étaient pas là avant. Moi, je viens toujours en retard. Parce que moi, quand Senghor était là pour aider les artistes, moi j'étais petite. dem ko doon admirer rek su ñëwee place Faidherbe ma ma teel a xëy 6 heures du matin di xaar su ma ñëwee ñu puus ma ci ginnaaw nii laay def pour gis Senghor comprendre nga mais kañ laa jox Senghor loxo nuyu ko mooy jour clôture bi centenaire fii ci galerie nationale. dama toog deux jours di def décor bi bi ma pare ma ne maa ngi ñibbi après ñu ne ma ah yaa ngi dem dañ ko war def vernissage ma ne mënuma xaar ma ne leen d'ailleurs kan mooy présider vernissage bi. ñu ne ma Senghor ma ne Senghor ma dem dugg ci toilette yi toccamtiku sëlmu kii diw kii ni solu ñëw taxaw ci ci aide bi di xaar sengoor bi nuyu nit ñi di romb di nuyu nit ñi di romb ba ñëw ci man bi mu ma nuyoo jox ma sa loxo yaay Senghor ma ne ko nii non moom defe ne nii rek ma ne ko nii téye ko xool ko ci biir bët xool tuur tourné xool sama bos xoolaat ko tourné waat xool ko xool loxo bi ma bàyyi mu taxaw di xaar pour ma wax mun du ma wax parce que li mu ma waroon jàngal ci aar ak culture ak xam sa bopp la négritude déglu naa ko ci rajo yi ba pare li ma bëgga mooy man sama nuyu boobu ma ko nuyu mu téye ko ci biir boppam effectivement am naa ko parce que bi mu duggee ci oto bi ñu mu nekkal dafa leen ne quelle est cette petite dame très chaleureuse qui m'a serré la main d'une manière affectueuse qui c'est celle-là ñu ne ko c'est elle a décoré le le le le l'expo c'est là qui a fait les installations et tout mu ne mais elle ira loin celle-là parce qu'elle a une profondeur que personne ne peut comprendre mais je l'ai compris moi loolu doy na du parce que nit ki dina la defal te fekk xamul sax ni mu ngi lay defal man li may def nii maa ngi ommat xale yu bari ñu ngi dem liggéey ci modd di liggéey ci aar mais man la ñu jël comme comme comme idole man la ñu jël comme vedette loolu du jeex mardi gras bi maa ko installé Sénégal dama daan jël xale Médina yi nga xam dañuy taxawaalu dama leen di jël teg leen sama kër ci vacances de de juin à juillet je ferme les enfants je forme les enfants dañuy toog ma forme leen defal leen ay affaires ba mu pare su ñu nee balaa ñuy naan août ñu daal di circuler dans les pâtés de maison di tëgg seeni porte ak yooyu bi ma ubbee métti sakana ma def carnaval de Dakar di jël waa école bi nga di jël ñu leen dugal ci petit train ba finalement école yi jël Mardi Gras pour les enfants parce que nit ki boo foowul benn yoon ci sa àdduna doo mën a liggéey parce que nit ki foo dafa nekk ci moom xale boo foowul nga nekk xale soo magee nga def njaaxum autant nga foo nga nekk xale ba sa foo jeex léegi nga nga nekk kilifa nag nga toog nga xam ne doo toog foo wati léegi da ngay dem rek jaarale yoon normal. xanaa kontaan ngeen. Ah, si kontaan nañ torop Tata Oumou Sy merci beaucoup je rappelle que qu'on voulait faire beaucoup plus ample. beaucoup plus ample connaissance ak moom seulement elle était trop prise donc par son événement l'événement qu'elle est en train de préparer rendez-vous est pris très sur ce plateau donc de Rewmi People amis auditeurs c'était tout l'on se le samedi prochain incha allah incha allah ak beneen artiste moo xam mu nekk ci wàllu wi ñu doon waxtaanee tey di wàllu mode wala leneen pour waxtaan nag moom gardez l'écoute restez avec nous très bon week-end et puis merci chez vous